paal yëpp a lakkoon dañ kaa dugalaat ni seen nga lii lépp a lakkoon kon dañ ko see dugalaat ni waaye lépp a gis nga bii nii lakkoon na nii gis nga ka nii kii dafa tukki defaraat na nii ba pare mais moom itam ñu ngi seetal gis nga ka nii faat Fatma mbay laa tudd dëkk Kayar suñu kër gi nag dafa jëkk-jëkk rek di lakk xamuñu lu koy taal daal ah bi muy lakk nag ñu ngi doon ñaan ndimbal Basirou Ndiaye daal moo fi ñëw def te yàlla tax sëñ Basirou Ndiaye ñëw na fi ñeenti yoon te nanguwul ñu jox ko sax junni lépp lu mu def dani def naa ko ngir yàlla ak jëmmi Seydina Muhammad def lépp àddiya ñëw baagante nag ba tàyyi ñu ngi koy sant di ko gërëm yal na fanam gudd ah ñoo ngi ñaan nag ci yàlla ñaan du doy ku nu mën a dimbali ah ba saafaraal nu ko ba dootul ñëw ñu sant yàlla ndax fi mu ne toog nañu ñaari weer ba tabaski ba pare te ñëwul ah daana toog na ñaari weer su paasee mu jëkki-jëkki commencé waat di taal waaye ñun daal fi mu ne sax sunu xel dalul bu baax ndax duñu ñemee génn fenn ba tëj sa néeg ndax wóoru waaw danaan bàyyi ba mu yàgg mu dellusiwaat di taal guddi ak bëccëg kenn xamul rab la kenn xamul junne la ñun daal ñoo ngi ñaan ba léegi ndimbal état dugal ci loxaamit ndax li fi yàqu dafa bari fukki néeg ak juróom-ñeent fu mu yàqu état war na faa dugal loxaam dimbali leen ndax liggéeyatoo dafatoo dara yaa ngi siy peen guddeeg bëccëg subaa ngoon sa néeg tàkk ngay fanaan si biti métti na lool ñoo ngi ñaan nag ci kattanu yàlla ku ci man xam-xam bu ko mën a faj mbaa nga am sa ndimbal ci état ak ku manti doon nga dimbali nu rek ndimbal mi ngi doon ñaan daal ba léegi bàyyeeguñ ko waaw ku nu dimbali nag ñu jël kër ak jaboot la bu fekkoon ni kër gi kenn nit moo ko moom da koy ub dem tuxu mais këru famille la ñaari weer a ngi nii moom ñi ngi santandi yàlla dara ñëw waaw duggaat nañ ci biir néeg yi nag it ah, dunde yaakaar rekk waaw di dunde yaakaar rekk waaye nag defoon naka bay àgg mu taalaat waaw fim mu ne daal ñoo ngi si biir kër gi mënuñoo dem fenn waaw ndax amuñu fu ñu jëm ñoo ngi ñaan nag état mu dugal ci loxaam ndax néeg bu ci ne soxla na ndimmal mu dugal ci loxaam dimbali borom mu am lu mu dolli ko jàpp ci mën a dugg ci néegam tëdd xale yi ñëwaataguñu ndax néeg yi amagul dara lu fa nekk néeg baa nga ne nan dem ba sa néeg sax nan dem moon la néeg ba ba nga wiññeekuwaat nga xam ne lii ma lay wax dëgg la kon léegi état war na noo dimbali mbënn mi da ciy def ndimmal géej gi yàq kër yi mu di ci def ndimmal lii nag yàlla wàcce ka mu yàqal nu te ñun gisaguñu menn ndimmal moo nu jaaxal nag ba léegi waaw wal fi ñëw na fi ku fi mën a ñëw it menn ndimbal jógeegul nag ci état dugg ci kër gi waaw tey géej gi ñu mu yàqal dañ leen a dimbali mën mi ñu mu yàqal dañ leen a dimbali ñun yàlla wàcce lii xamuñu fu mu jóge xamuñu ku koy taal te ñun mënuñoo am ndimbal néeg yaa nga ne ñëwal na xool néeg ba ñu continuer dem jërëjëf borom néeg bi ah dafa lakk néeg bi ak salle de bain bi ak yëpp boroom néeg bi ñibbi na fa mu dëkkoon dafi doon tey néeg bi lakk na matériel baag yépp dem na beneen mat la boo fi dugal mu taal ka moo tax xale bi wóolootu fee dugg te jëkkëram dafa tukki kon loolu wóorul ba tax na néeg baa ngi bu fi caabi ji nekkoon dañ leen koy tëjjil ba ngeen dugg ci biir ba xool ni mu lakkeek ni mu yàqoo léegi nag ñun état dimbaliwunu bu fekkonte ni bii ndimbal ñëw na dañuy jël néeg bi defaraat ka boroomam toog mais boroomam dafa tukki ñoo ngi ñaan na ku ñu dimbali dafa lakk moom itam ba yàqu jëkkëram dafa tukki jabar bi ñemeetu fi moom dong mi ngi amul sax laa bu mu tëdd kon lii état war na cee dugal loxaam bu baax dimbali ka mu mën a jënd matelas jënd lu mu def ci néeg bi coiffeuse bi nga séen foofu ci biti moom moo ko moom borom néeg bi matelas yeeg yëpp lakk nañ tuure nañ leen gis nga nii peinture bu bees gis nga ko ardoise yeeg lépp ñëw nañ ko ñëwal xool ne thank you